وقال وانا زهير زهير يمدو يمدو مغي تاغ ايدن باتاي حريمان حريم لا دون تاغ بوري ادنا رك لا بو سير موم ينون تولا تاغ صلى الله عليه وسلم دي زهير نه لمن الديار انا كومم كريا بقنة الحجر bu nekk si njolloxtonu dojo xajir de xajiru ab barab la aqway na wéet nañ mu ngi jógee sa aqwaa rek de min xijil ci ay at wa min shahrin ci ay weer de ñëw na fekk kër yi soppe yi soppeeku xàmmeetul fa dara soppeeku gi tol nañ ci ay xat ak ay weer yu bëree bëri muy laajte nag kër yi ko ko moom de ndax xàmmeetul ko loolu daf leen leen naqari ñoom arab yi soppeeku kër yi soppe yi ba bu ñëwee duñ ko xàmme ñuy laajte naan ko moom kër yi xam nañ ne soppeeku moomoon waaye daal dañoo bëgg wax ne léegi xàmmeetuñ ko de lay ba fona foxe naa mhm. azamaanu jamono biyaa ci moom kër yooyu waxa yaraxaa soppi na ko baadi sama gannaaw mhm. sawa fil muur yi way jëqi wal xatru ak tawba mhm. mu ne jamono foxe na barab yi foxe na kër yi pënd yi jub ak taw yi waaw soppi kër yi de ba kenn mënatu ko xam ndeysaan xafran mbir mi ñi payengaan ñoom kër yooyu bi mun dafay naxaa iti ci jëñuwaayu teenu naxaa it min dafa ca bërëb ñu wax dafa wulaati daal yee borom dem bukki ba hmm. wasadira ak dem waa ak dem ak garab dem de mu ne barab yooyu mujj na ràpp mel nekk payangaan amul dara amul ndox amul dara hmm. fan la barab yooyu nekk nag ñi ngi ci fatteeni naxaay di ballee hmm. naxaay di ay teen lañu xam ca barab bu ñuy wax dafa foofu léegi mujj na wéet amatul dara de boo fa demee daal dafa fekk lu mooy déem bukki ak déem yi ngi génnee waa garab yi déem yi nga xam ne nii déem yi ñuy lekk la daf loon méttarlu ci këri soppeem yi waaye daf ko xubbee waayu rek de loolu tax koo jug moo tax mu ne dama bàyyil za ku kër yi wax di jéggil ak xawma nit ña fi jëm ci tagg xarim wa addi kon na nga tourné alqawla wax ja alqawla la dégg nga hmm. fi xarimin jëm ci tagg xarim de xeyril bu ñi gën ci way dëkkee àll wa sayidil xadari te mooy sang ci ñuy dëkkee taax de hmm. mu ne bàyyi li nga nekk di wax ni da nga tourné wax ji ci tagg xarim mi nga xam ne ku dëkk ci àll moo la gën ku dëkk ci taax mooy sa sang hmm. tagg na ko taggu rëy te laayi maa ngi ci قرالي مرقمنا سرات بني زبيانا سنگي بنو زبيان عامل حبسي أتم تي جرغا والأسرع أتم قتك دنو دي مياتم بيكور أن ليام بام نعم باهنا موترك الجياعي رنك لوغو إقيفيا إذا خبا دنگنم وونا السفير قبي غربيا wasaabi u wasaabi wu la wasaabi wal xamre ak ji jënd sàngara de dégg nga maanaam mu ne mu ngi gën ci yàlla ne bu jamono demee ba nit ñi di téye seen jur ndax ragal mu génn ñu ñu jël ko ndax naqadik dund bu demee ba nit ñi nekk ci baykoor woy xiif yi fa ñuy dajaloo dégg nga mooy xarim de mu ne sang yi xam nañ ne bu demee ba jamono bekkoor nit ñi di téye seen jur gi ngir bañ mu génne ñu far ko ñàkk danañ xam ne dëgg-dëgg xarim mooy sang bi dëgg ndax woy xiif yëpp foofu lañuy ñuy dajaloo kañ ci jamono ba nga xamee ne ni xobi garab yaa ngay daanu waaw jëndikati sàngara yi moom ñoo jënd dara ndax bekkoor wala nee ma baax na xasuut uh-huh. dirin yi aji sol mbuum koŋ ante yow harim isa du'iyat buñ xootee ne zaare wàcc leen wallu jëñu xóotal fi zoxri ci tiitaange yaay yaay yaay sang ba bu demee ba nit ñi ne ay wañu ñëw ne ñu di waatoo guerre ñëpp tiit sang yi danañ xam ne yaay ki gën ci kol ki sol mbuum koŋ de pour wàcc xare uh-huh. mu ne ko xamis jimaar yaa aji xaar kóllëre yi ala muhafazatil jullaa ci wattu mbir mu mag ma aminu mu xëya bi sadri yaay kiñ yaay kiñ ci lu nëbbu ci dënn yi de mhm. kóllëre yi yaa koy xaar mhm. mbir yu mag yi yaa koy xaar mhm. waaye nit lam denc ci dënnam bëgg koo wax kenn mu di secret yow la ci wóolu ndax bu la ko waxee secret ga du génn de xadibun aji boof la alal laa ci doomu bàyyi taxam addari ki ki aji loru isa naabat ndem wutu wante naa lay ci moom na waaye bu daari musibaay jamono yi doomi bàyyi taxam bu nekkee ci lor dafay ñëw boof ci kawam de ba lor du ko laalate maanaam ku bëri yërmande la ci ay mbokkam bu musiba jamono yi ñëwee rek bëgg a dal ci doomu bàyyi taxam boof ci kawam bu musiba yi du laal doomu bàyyi taxam boobu de dafay xaaray mbokkam daal la bëgg wax wu mu raxaqu niiraani kuñ dikkal ay safara yoo xam ne danañ ko sant fi la waaye jamono xat-xat xeyru mu la anil xidri nekkul kuñ kuñ rëbbu ay cinam de safara muy taal pour benn nit ñi dañuy njëkkalante di fa dem ndax ku fa dem sa sedd bu xat-xat jotee ñëpp moom la ñuy tàgg cinamit du luñ rëbb ñëpp dañoo bëgg lekk ñamam waaye kenn mu dawut ñamam de am na ñoo xam ne buñ toggee bu xoolee nit ñëw ndax xam nañ ne làq nañ ci yeneen intérêt wala boog yeneen toroxtaane ma ngi ca hmm. waaye moom ñëpp dañuy bëgg a ñëw lekk ci ñamam wax ndax xam nañ ne teraanga gu raxul benn toroxtaane la hmm. waaye xiika dana la fegal hmm. maa waqaa la fegal na ko alaakaari mu tere way tedd ya min xubin ci bàkkaar rek laa de tusabbu danañ ko ŋàññi bi ci moom wa min xadrin ak ci wor maanaam dafa bëgg moom du workat dégg nga moo tax boo ñëwee ci moom mu fegal la la muy fegal lañ fegal ñu ñu ñu tedd ñëpp te mooy bàkkaar yoo xam ne nii day tax ñu saaga la wala ñu ŋàññ la ak xor yoo xam ne day tax nit ñi ragal la moom boo ñëwee doo ko fekk ku taqoog moom rek doo gis bakkaar boo koy ŋàññee wala boo bàkkaar bu nekk si yow sax buñ lay ŋàññee ak xor ndax dana la ci musal de waysa barasta boo génnee ilay jëm ci bii jëm ci moom xamal ne génn nga ilaa saafir xaliqati jëm ci aji sell ji ay jikko tayibil xubri kaa ji tee ay mbóot boo demee ci moom daal xamal ne ñëw nga ci ku sell jikko ku tee ay mbóot lam denc daal lépp lu rafet la dégg nga mutasarifun aji soppandiku la lil maj ji jëm ci teraanga muxtarifin nee na aji muñ la ko firee waaw li naay baati musiba jamono de yaraahu dafay sigir de ngir kontaan li zikkiri ngir fàttaliku ko foo ko fekk mu yëngatu rek ci teraanga la jëm moom ay yëngatoom yëpp fàggu teraanga la mhm. waaye musibaay jamono yi def ko def ci mën a muñ lool musiba lu metti métti boo ñëwee fekk ko ma ngay muñ mhm. te buy fàttaliku musiba yi sax dafay sigir de ngir kontaan de mhm. bu jaaree fu metti ba jàll bu koy fàttaliku dafay bég ci waaw coono boobu mu jaar mën a muñ ba romb ko jël din aji dëgër la yow su dafay xiir ni ñaaral jami ci dajaloo isa këree ndem sib na azanuna aji ñaaw njort si jawaamiwal amri dajalooy mbiri mu ne moom ku dëgër la ku am dogu waaye toujours dafay bëgg dajale bëgg ni ñi xandoo waaw def lañuy def ci jamono boo xam ni borom njort yu njaawee ñu ngi yaakaar na xandoo gi moom du jëriñ ndax ndax yeneen intérêt waaye ñoom moom dafay xiit nañu ci nekk benn rek laa wax de dafa boole ne rek ku yaatu la ku yéene ñëpp jàmm la falante yow tafri danga dog maa xalaqta la nga nattale wa baadul qawmi ci nit ñi yaxluqu danañ natt danañ danañ nattale su ma laa yafri dog gis nga xalaqa gi nga gis mi fi xalqu mbindeef li mooy luxaam dëgg-dëgg xalqu mooy lan mooy da ngay jël der nattale ne fii ba fii laa bëgg a dagg liggéey ci li mu bëgg li ma liggéey loolu mooy xalku gi dagg gi du mooy xalku de nattale gi rek mooy fii ba fii laa bëgg laa bëgg kii loolu nag junj la nga dagg gi du mooy xalku nattale gi fii ba fii ci lay bëgg dagg liggéey ko loolu mooy nattale gi loolu mooy xalku bi xalaqa yaxluqu dégg nga su ko defee nag muy noonu dafa am digg boo xam ni ci la yenn yi feeñ loolu mooy xalku waaye loolu loolu sànq nañ yu bëri ñun xamuñ lu xew mhm. hmm, ba ñu xal ko yaakaar nañ ko leneen mhm. der da nga ci def xalq ba pare fekk der bu der dara dégg sa sa sangiwu waaye natt nga ngay nattale fii bu fii li ngay def ci foofu nga koy def rek loolu mooy xalku xam nga loo xam hmm. falante yow tafriq da nga dog maa xalaxta la nga nattale de bu baadul qawmi ñeneen ci nit nag yaxluqu danañ nattale su ma laa yaf yi dog yow daal loo diggee def ko ñii nag dañuy digle rek te duñ def walaante yow as yow yaa gën a jàmbaar yi ne te tëjiw jamono bi ngay jub te jamono ba dana jublu arab taalu jàmbaar yi min lay si min lay sin ci gaynde yaa jàmbaar gaynde abi ajirin kii bàyyi waa ay doom jamu jiru dégg jamono bi jàmbaar yi jug yaay gën a jàmbaar gaynde gu xam i doom ne ko gaynde gi nu mel mu ne war duna aji xonq waraadu mhm. saa dee ni ki aji yaatu ñaari dégg nga nuñ koy tuddee sa xasabu jadi hadidu naa bi ki ñëw ak sell bay na daraaximi nekk ci doomi gaynde xusrin dégg nga yu yooyu Mm-hmm. gaynde googu nga xam ne dafa xonq xeel yaatu mm-hmm. seen ñaw mu am doom yoo xam ne nii ñu nga pënd gaynde googu ni muy jàmbaaree bu jàmbaar yi jógee yaa gën a jàmbaar gaynde googu gestasu mm-hmm. dina rëbbu moom gaynde googu wax daana rijaali way weeti góor ña fa maatan fakku du dañ du tàqali koog ajiri yi ajiri ga ma waxoon moo nekk ay doom jamo jiru la de ala zuxrin ci yàpp wuñ denc gaynde googu du rëbb mukk eh, nit ku simple nit ñi xamul morom ñi mooy wax daan te mu waaxit dégg nga nit ñi morom ñi rek lay rëbb mm-hmm. te su nekk doomam yam ak leen dencal yàpp gaynde googu ni mu jàmbaaree yàq gën a jàmbaar mm-hmm. yow xarim de wasitru kiiraay doonal faay saati xis na way ñaaw yi wama yalqaakaru dajeg yow doonal xayri la xis xiwoo min sitrin ci benn kiiraay mm-hmm. dafa bu wane boo bëggee gis lu ñaaw ci xarim xam kiiraay gu dox sa digganteem ak sa digganteem moom ak lu ñaaw le maanaam lu ñaaw mënul jugee ci moom ndax dafa am kiiraay gu koy xaar ci yu yi waaye daal moom bu dee xiw nga bëgg xamul lenn lu lay xiir direct ci moom nga jëm ku bëgg xiw ci moom daal fekk ko fa ku bëgg lu ñaaw nag boo demee doo fekk ndax day am kiiraay guy tax moom lu ñaaw dégg ci moom kiiraay gi nag mooy kers wasituru kiiraay kersa doonal faay saati xiis xiir na yu ñaawe de wama yalqaaka waaye du dee yow nag doonal xëyri xiis lu xiis xiis xiiw ya min sitirin ci benn kiiraay boo bëggee ci moom lu baax daal amul lu lay tee yegg da nga ko am de boo bëggee lu ñaaw nag kersaam mooy tax doo fekk lu ñaaw loolu us nii danaa taggaale ko ci yow harim maa lim tu ci la ma xam wama salafta ak la nga jiital fi najdaati si njàmbaare ya wa zikri ak fàttaliku ya danaa la taggee li ma xam ak jàmbaar gi nga jiital mooy balaa may ñëw la nga defoon ci jàmbaar ak yéen ñi di fàttaliku ci yow ci mbaax yooyu yëpp danaa la ko taggee law kunta boo nekkoon min shay'in ci dara ci waa basharin lu dul mindeef kunta da nga nekkal mun a wér daa ji leeral leeral batari ku ci batar boo nekkutoon nit daal mane yaay leeral guddig badar de weeru badar rek ci nga yell eh, mum nga yello o xaala wana yelen ba tey naafa rapp na min ali fatima si ñooñ fatima aljiwaaw bala bu ñu wax jiwa fa yumnun topp yumnu fal qawaadimu topp qawaadimu fal insaaw topp insa yépp ay barab lañ mu ne jiwaawu fatima nekkatul foofu yum noog xawaadim ak xisaaw yooyu yëpp ay réew la ñu nekk xatfaan fatima nekk tu fëre haashin topp borom ak fadu haashin topp du haash kooku fatima nekk tu fa miisu dégg nga xoreyti naati yoolu kaay ndox xoreytu naat dégg nga afat haa rappal ko ari yu taw ga baax dagi sa wa sama ak tàngoor ab dégg nga moo gi biyee bi ñu jàngale benn la fa zirwatu topp zirwa fal jinaabu topp jinaab ka an na xunsan nihaaj yi dafa mel ni way gàtti bakkani wëlliya a taawiyaati dafay xiif biyaa nekk na ci ñoom almulaaw mul fay rek laa wax de dégg Mhm. mu ne zirwatu ak jinaab ñun Fatima jugee nañ fa dégg nga gis daal mooy kiwal yi rek kiwal yu weex yi bëri karaw bu mel ni dañoo am ay mul fu ñu sol mhm. yëchim la ñu ngay séentu buruuqoo melxatiye wayuri shu muy seb ariel janubi lemab tawab ngarawu janub ala xawaaji ba ci ay yéen nekk na ci ay yéenam alamaawu niir wa de mu di taw ba ni e, e, njaaxal yooyu nga xam ne ñoo nekk ca barab ba barab bu saa su nekk dafay taw moo tax dañuy séntu melxat yi yaakaar taw ba waaye bu ñuy séntu rek muy taw taw boo xam ne daf leen indil gàncax gu neex ba mel ni ar yu mu di lem moo tax mu ne taw ba taw taw buy jugee ci ndeyjoor la niroo ak lem de buy toq seen kaw ci seeni i xéen waaw niroo fare leen kaw nag waaw muy taw rek barab buub daal fatimatu jigéen fa ak i ñooñam kéwal yaa fa nekk ak taw ba falamma an tahammala bam laxasee alu layla ñoom layla jarat daw na bay nii sama diggante bu bay na ak seen diggante zibaawu kéwal yi de dégg jarat daw na sunu xan diway faaru wala ndeyjoor fa xultu ma wax laa ñeel ko aji ji rombal nawan wala boog jéggil ak taqali ko mashmulatan gu gaaw fa matal ba xaaw kañ la des di am mu ne ñooñ lay laa bañ laxasee daal di dem ba barab boobu dama faa gis tëwal waa gu ma faaru ñëwee ma wàll ndeyjoor ma ne ko jugal fii yow kéwél gi naroo andi lu may ak taqalikoo rek de maa dama gaaflu taqalikoo gu gaaw rek nga a andi ba nga xam ne ni eh, des des dootul mën a maanaam taqalikoo ñëw na ñëw na xam naa ne ñëw na jeex na loolu rek ngay junj waaye man xam naa ne xam na de des mënutu na xam te xam ma la laxasu na aloha ñu ne minaa ci fa baanoo ñu facc ala asaarin ci ay jeexit boobu fa baanoo yàlla yàlla facc ala asaari man zahaba waaw ci jeexiti ka dem na ala fa ala asaari man ci jeexiti ka dem na ala war mu ne gaañi dem nañ taxamala laxas na ahluwaa ñooñom mi naa ci bara boobu fa baalu ñu facc mujj nañ dem daal muy ñaanal nag ña dem ne yàlla yàlla yàlla na seen mbir ràpp ndax bëggu tàqali kooku de kan waa bi den dafa mel ni waa woy fañi ndagi àll fiyaa ci barab boobu xajaa inu ay kiwal yu weex lañ fii maxa binaa nekk na seen suufi tànk ya attilaaw gadron ya de dégg nga mu ne ndagi njaal yooyu ñoom mujj nekk ca barab boobu boo leen xoolee dafa mel ni gëlëm gu weex xajaa inu gëlëm gu weex la dañoo mel ni gëlëm yu weex yoo xam ne seen suuf tànk ya dañ caa diw gadron ñoom la niru yëng daga jaal yi de laqad taala toha sàkk naa ko wari kulli shay'in ñeel na lépp lu nekk wayn taalat de yàgg na la jaajëtoo ak nuuram intihaaw nag jeex de <laughs> mu ne lu nekk rek danaam fu mu yem jëree waaw yàgg nga ci lool daal danaam fu mu yem kon yàgg naa sàkku ndaw soosu bëgg koo jot bëgg nekk ak moom waaye daal yàlla dogalul seen diggante moo tax moo jeex na de tanaaza xëccoo naag jigéen jooju almaha nagu njaxal sabahan ci niroo u duru nuxuri ak urusu duru pottoxe moo di doqee wa shaka niro wante na fiyaa ci ndaw soosu azibaaw kéwalire mu ne ndaw soosu ku rafet la am na loo xam ne ndagu njaxal la ko niroog am na loo xam ne urus wuñ taq niroog na loo xam ne kéwali rek laa wax la ndaw si dégg nga hmm. mu ngay teqale nag ku nekk lam la niroo hmm. mu ne fa amma maa fu way xalañ xëri waaye nekk ci kaw caq ba naa ci ndaw sa fa min adma mu ngi jógee ci kéwél gu weex martan waa sam waayam alxalaaw moo di caawa sa mooy barab yu wéri doq ga daal wax jëm kaw dafay mel ni doqab kéwél gu weex goo xam ne dafay sàmm rek ci barab bu wéet mu taxaw yëkkati dox gi nag di xool ndax gis na dara am déet ni doq kéwél gi guddee ak ni mu rafetee noonu la doq ndaw si mel hmm. loolu la niru kéwél gi doq waaw man muqalataani waaye ñaari ndagu bëri min maatin mu buggee si ndagu njaal ñaari bëti nag dafa rafet bu mel ni bëti njaaxal la hmm. wali durri ñeel na wurusu durru ga almalaxatu melxateg yaram wa wasafaaw ak sellab yaram wa rek laa wax de yaram wa na muy melxatee ak na der ba dafa mel ni wurusub duru wuy melxati mm-hmm. noonu la ndaw soosu mel mu ne fastarim dogal nag hablaha buumam ga istaram du jamono ko dogee waa daa tere na alaa daaw aji tere jantulaa xeexaa nga dajeeg moom de mu ne dem yàlla dogal ne mënoo dajeeg ndaw soosu am na gàllankoor gu tax mënoo dajeeg moom kon nag moom dog na buum bi yëwi dog ko rek benn yoon mu daal di jeex ndax looy sàkku te mënoo ci jot bàyyi ko rek laa wax mosantuma tawfiq illa billah ali tawakkaltu ilayhi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu